Mhm. kon ñu fas yéene yeggale téere bi nga xam moom mooy jawharu nafis nga xam ne ñu ngi tolloon ci baabu thani muy euh, bunt bi nga xam moom moo mujj ci téere bi kon tey suñu bind bi nga xamante moom lañuy jël muy commencé ci waman tafakkara ku fàttaliku xalilan du néew li xadasin ñeel am toj aw naj aw najasin wala sobe xat sakka goo xamante ne sikk sàkkal na fii ci moom wa baxas dem gëstu وأي wóolu ko te mu wóor ko baadu ginnaaw ba tahaarata laab ga fala shay an déet دكور ko dara fala shay an déet dara alay di ko war bittifaaxi nubalaa ci dëppoog way xel yi nee na képp koo xamante ni maanaam daf doon julli di sikk sàkkal ci biir julli gi ndax moom kat amee na am toj wala amewut am toj wala am na sobey mu taq yéreem wala yaramam wala barab bi mu jullee mu di ko sikk sàkkal ci biir julli gi waaye nag jurta yàgg nga xam diir bu ndaw rek ci la am ci julli gi doon sikk sàkkal lu mel noonu ginnaaw ba nag mu daal di koy wóor avant julli gi pare moom wóor na ko ne ah bu dee am sobekat taxu ko bu dee am toj lay sikk sàkkal mu wóor ko ne am na am laab waaw nga xam te ne amutoon am toj bi muy julli waaye amee na laab bu fekkee ne wóor na ko avant muy sëlmal rek su boobaa kon nee na diir booba nga xamante ne moo taxawoon doon ko sikk sàkkal ci biir julli gi nee na diir boobu moom ah, dara du ko ci war sujjóot du ko ci war dara du ko ci war waaye fi ne boo xoolee fii ci téere bi sëñ bi dafa wax ne xaliilan mooy diir bu ndaw rek waaye na boo demee ci lax laxdar yi borom laxdar yi dafay wax ne diir boobu moom lu mu yàgg-yàgg it maanaam lu mu yàgg-yàgg maanaam dara waru ci donte donte moom ah, li ci am soo rek moom mooy balaa julli gaa pare daal na ko wóor ne rek maanaam amoon na mu jàpp waaw maanaam lu mu yàgg-yàgg it maam dara waru ci li ci am solo mooy avant bi nga xamante ni moom laataa muy pare ci julli gi moom wóor na ko ne maanaam am na amoon na laab bi muy commencé julli gi waaw waaye diir ba lu mu yàgg-yàgg rek tam moom mu wóor ko rek ne amoon na laab bi mu commencé julli rek ba mu lax terminé moom ah, loolu dara waru ca waaye nag su fekkoon ne dafa continuer noona nga xamante ne ba ni muy sëlmalee taxul moom mu am ci lenn lu ko wóor bu dee am toj lay si saakal taxul mu am lu ko ci wër bu dee sobe taxul mu am lu ko ci wër nga xam noonu la continuer ba julli gi yeex moom nee na kon su boobaa kon julli googu faaw daf koy bamtuwaat waaw wa mislu daa kem lii fil xukmi nekk na ci àtt ba man ka nga xamante ni xadil xadil tafat gersu na la daa salaat yi fa ak julleem li saxwin ngir ak njuum xat sabat ba sax na nee na ki nga xamante ne maam dafay julli daal di gersu ci julli gi daal di gersu ci julli gi waaye nag gersu gi tëyu ko dafa juum rek daal di gersu nee na kon bu boobaa loole dara waru ca gersu gim gersu noonu rek te njuumte waral ko moom nee na loolu kon maam dara waru ci sujjóot waru ko ci dara waru ko ci laakin na waaye amdu ak tayam euh, la daa man fa ka nga xamante ne alima xam na du def na ko xam makruhan muy lu ñu sib kama taqaddama comme ni mu jiitoo nee nag su fekkee ne gersu goo nga xam ne si moom la gersu moom euh, moom moo ko tey moo ko tey daal di gersu ci biir julli nee na kon bu boobaa loolu mu def def na luñ sib luñ sib nag mooy loo xamante ni boo ko bàyyee am ci tiyaab waaye boo ko boo ko defee ñu bindal la ci maanaam bàkkaar bi nga xamante ne maanaam euh, def na ko nga xamante ni euh, gers gi gers moom moom moo ko tey waaw daal di gers ci biir julli gi moom nee na kon soobaa def na luñ sib waaye nag gers gi mu wax nag moom mooy gers goo xam yow sa bopp moo wëlbati ko rek waaw jëm ci ndeyjoor baa mu jëm ci maanaam càmmooñ amal les yi daal ka nga xamante ni istadbara wan na ginnaaw xiblatan xibla la daa za fa lii fa lu it def na dana baamtu tilka salaata jooju julli abadam ba faaw neena na ki nga xamanteni nak mom da won ginnaw ginnaaw nga xam dafa wulbeutiku dafa gersu ba ay jëmmam wulbeutiku lepp ay tànkam wulbeutiku ba won ginnaaw qibla nga xam ma nga jublu ci benen côté bi nga xam ci ni yëmul rek ci bopam wulbeutiku waye jëmum jépp far wulbeutiku ba won qibla ginnaaw neena na kon koku jullem ko mom faaw daf koy bamtuat waaw faaw day bamtuat julli waman koo xamante ni man yu salli ku jullee bi xariirin ci ab sooy aw nazara wala mu xool muharraman lu ñu xaraamal faqad asa mooy na rabbal bashar borom mbindeef nee na waaye nag laakin na salaatuhu waaye julleem nga ba saxiixatun aji wér la nee na koo xamante ni dafa jullee ab soie sooy moom la wax soie koo xamante ni dafa jullee ab suwa wala mu xool loo xamante ni dafa araam nga xam mu ngi julli daal di xool lu araam nee na kooka dafa def li mu def moom sujjóot duñ ko diggal mu sujjóot li mu def mooy dafa def bàkkaar ci biir julli yi waaye nag julleem nga moom baax na dara maanaam yàqu ca lépp baax na julle suwa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa sama xeet suñ borom ci waxoon moom moo araamal ci ñoom sama xeet ñi nga xam ñoo ci nekk ñu góor suñ borom moo araamal ci ñoom ñuy sol suwaa kon nit ki nag su ko tayee bu ko tayutoon jullee ko moom wàññiwul dara xam daf koo xamutoon rek daal koy jullee moom wàññiwul dara waaye nag su fekkee daf koo tay julliwaale ko xam na ko ba julliwaale ko soo baa moom dafa def bàkkaar dafa def lu araam bu fekkee ne tamit li ñu waxoon ci xoor gi tamit noonu la ba léegi maanaam dafa def lu araam waaye nag julli gi moom moom jëmmi xaqiqatan jëmmi julli gi moom moom wér na dara yàqu ci waaw kazaalika noonu saariqu shay'in aji sàcc dara fii salaatihi ci julleem xosan na nga ko jàpp leen koo xam ne day julli daal di tafu ki mu dendal daal koy sàcc ci biir julli gi daal nga xam ñu ngi julli ki mu dendal mu tafu ko maanaam sàcc dara ci moom masalan mel ne mu sàcc portable am te ki mu dendal yëg nga xam sàcc na ko daal masalan ci biir julli gi nee na sàcc gi ko sàcc ci biir julli gi taxul julleem yàqu moom mi sàcc moom taxul julleem yàqu daal waaw maanaam bu dee ci ci fiq nii rek moom julleem baax na dara yàqu ci waaye tey boo ko doon atte ci li nga xam moom mooy nag tasawuf nag su boobaa euh, dañuy wax ne kii julliwut dafa doon waaye bu fekkee da nga ci fiq rek moom bu fekkee ci fiq rek lañ xool moom nga julli tafu nit sàcc ko maam sëg julli moom yow dara yàqu ci baax na wal tasjud na nga sujjoot al baadiya baax baada in xalita ndem juum nga fi xiraatin ci njàng ma min xayri qur'aan ci ludu alqur'aan taf yi goog dana dikk bi kalimatin ci ab baat waaxidatin bu di benn nee na su fekkee dangay ngay da dangay da ngay da ngay julli daa di juum daa di wax baat boo xamante ni bokkul ci alqur'aan ngay julli di tare alqur'aan wax baat boo xamante ne benn baat képp la waaye nag baat boobu moom bokkul ci alquran waaye nag benn képp la waaw nee na kon soobaa euh, da nga koy sujjootal ndax léegi da ngaa yokk ci julli waaw ngay julli wax baat boo xam bokkul ci alquran ngay tari fa daal di jum waxaale baat boo xam bokkul ci alquran nee na soobaa da yokk ci julli kon da koy daal di sujjootal ba'da salaam ba'da salaam moom mooy. après bi nga xamante ni sëlmal nga ba pare ñaari sujjóot yooyu nga sujjóotaat xabla salaam mooy avant ngay euh, sëlmal ok kon su fekkee da ngay julli juum wax boo xam bokkul ci njàng mi ngay jàng wax baat boo xam bokkul ci alxuraan nga xam bokkul ci alxuraan du kon da yokk ci julli kon da ngay sujjóot li xam moom mooy baada salaam ginnaaw boo sëlmalee ba pare waaye nag in takku nem daa nekk min hu di bokk ci alxuraan nag falaa sujjóot dépp déet sujjóot di ca إنما من فكاها من فتنة خلوة لأنه فكون نتي القرآن لبعد تي فكون نبعد بوب تي القرآن لبوكونك سوى باكون نينا سجود بوري تي داروي مثلا نجي نجي نجي جولي دي دي تاري واخ بعد بو خامتيني ياو تي تي مانام بوكول تي لي نجي تاري مثلا نجي جولي دي تاري قل هو الله احد جوم واخ بعد بو خامتيني بوكو تي اسا جاء الله xam nga kon léegi baat bi nga wax bokul ci bir xulwa ci ci saaru xulwa boobu bokku ci waye nak tiiw alquran la ba léegi kon neena su boobaa kon dara waru ci ndax li nga wax alquran la rek ba léegi kon boobaa dara waru ci su jot waru ci dara waru ci lakin waye nak iza ghayyara nem sopina lafzan baat aw qad lafzan baat qad ulim bob xameef aw afsada wal muyaq al ma'na al ma'na ma'daba fa ba'diyun baada salaam lazim dana war lazim kon na ci nee na su fekkee ne da ngay baat bi nga wax baat boo xam sax ci alquran la bokk waaye bokkul ci li ngay tari daal comme ni ma leerloon nii ci ginnaaw ngay jàng xulwa di tari saaru xulwa juum wax baat boo xam ne mu ngi bokk ci isaa jaa nasrullah nga xam ne alquran la ba léegi su fekkee ne donte ci alquran la bokk bu fekkee da nga yàq baat bi maanaa bi mooy jëmmi maanaa bi nga xam danga baat bi da nga ko maasee noo xamante ku doon firi baat bi maanaam da lay jox beneen façon maanaa soo baa kon maam euh, baax dana ci war ndax léegi da ngaa soppi baat bi niñ ko woon maasee ko noo xam ne tey jii fi mu ni nga ko waxee maanaam tey ji ku doon firi baat bi da lay jox beneen maanaa soo baa kon baax islaam da ci war ni ki noonu tamit bu fekkoon ne soppi wa maanaa waaye da ngaa soppi yaxu baat bi yaxu baat bi nga soppi ba tey ba euh, ba tey baat islaam daf ci daal di war ok wazu noasin boroomu gëmmentu fi salaati jullika laa sujjuudoon déet ab sujjuut alay di ko war inkaan mu nekk na xafiifan di woyof yaa murid yow taalibe bi nee su fekkee da ngay julli ngëmmintu xaw laa dab ci biir julli gi nga xaw a forbët ci julli gi su fekkee ne ngëmmintu googu nga xawa a nelaw noonu ci biir julli gi dafa nekk nelaw gu woyof neen soo baakon julli gi dara yàqu ci su sujjóot waru ci dala waru ci waaw waaye nag su fekkee rek maanaam gëmmintu boo xamante ni daf laa dab ci biir julli gi tam lu woyof nga xam tey boo yoroon dara sax ci sa loxo bu waddee da koy nga xam te ni nelaw la goo xam te ni daal nelaw woyof la soo baakon nee na euh, kon julli ga euh, baax na sujjóot waru ci dara waru ci mhm. mu ne laakin waaye ida thaqula ndem diis na nawmu ay nelawam aada kon na baamtu salaatuhu jullem ga maa wudu in nga sàkku rashaadan ak njub nee na su fekkoon ne nag ah, nelaw yi nga nelaw ci biir julli gi yaa ngi julli far nelaw ci biir julli gi waaye nelaw yi dafay nelaw yoo xam nelaw yu diis la nga xam tey fi ne fekkoon da ngaa yor dara sa loxo sax loola mën naa mën naa mën naa wadd te doo ko yëg kon su boobaa kon julli ga dafay daal di yàqu danga koy julli wat wa nga xamanteni su fekkee ne maanaam dangaa nelaw ci biir julli nelaw yi nelaw yi nekk nelaw yu diis nee na nga xam tey boo yoroon dara sa loxo sax boo dee doo ko yëg nee na kon boobaa julli googa day daal di yàqu ndax nelaw yi dafa nekk nelaw yu diis moo tax waxtafaru jéggal nañ al anina aji biñ lil maridi ñel aji feebar waxta salaati yi waxtoom julli ga waxtu salaati yi ci waxtu julli ga ihwazan nanga nga nanga na nga wattu ah, xarid sama woy nee na ki nga xamante ne dafay julli waaye nag feebar tax muy onk ci biir julli gi di onk noonu ci biir julli xam nga day mel ni ak wax onk gi day mel ni wax waaye nag feebar bi moom moo tax méttiwaay feebar moo tax muy onk nee kon loole desu ko jàppee dara maanaam dañ koy jéggal duñ ko wax ne ko da koy sujjootal duñ ko wax ne ko sa julli yaa ko ni ko jox dañ koy jéggal rek loolee maanaam du ko sujjootal du ko def dara ah, ok wa mislu am kemam tanax nuhun xaddamtiku li dara ngir ak lor nee na koo xam day julli nag daa di xaddamtiku di xaddamtiku ci biir julli gi ta xaddamtiku bi maam def ko ngir tayal maam daf ko def rek ngir loo xam ak lor ko waral neen soo baa kon xaddamtiku mu xaddamtiku julli gi dara waru ci waaye nag rawatina su fekkoon ne euh, xëy na baatam dafa xaw a euh, fattu a tag noonu ba tax munta ñàkk a ko ngir mën a tudd baat yi mu leer ndax baat bi dafa xaw a tag ba munta tudd baat mu leer tax mu ko ci biir julli ngir maanaam baat yi mën a leer mën a tudd baat mu leer kon soo kon tamit dara waru ci waaye nag amma ifhaami ndaal xamle mooy yëgle fa makruhun lu ñu sib la dur yi xameef na ko nee na su fekkee nag maanaam moom xaddam ci gi daf koo def rek ngir yëgle yëgle mooy ñu koy kenn mu nekk néeg bi di julli am kuy dugg ci biir biir néeg bi nga xam fi mu taxawee maanaam moom mu ci biir néeg bi daal waaye nag xëy na amaan dafa fay laam bi wala lu mel noonu mu dugg ci am kuy dugg si mu di ko xaddamte di ko wan na ko maa ngi fii taxaw damay julli bul dam sa bul dal sama kaw ngir yëgle ko noonu nee kon soobaa def na luñ si waaw ndax moom xaddamtikul ngir lor dara maam daf ko def ngir yëgle soo baa kon def na luñ sib waxul waxal li man xam sàbbaxa sàbbal na li ni ngir woote faalta def nga makruhan lu ñu sib bi lam tira en ci dul ak werante laakin waaye salaatu julleem nga saxiixatun aju wér la yu umaru def ko digal li sujjuudi fala yu umaru def ko digal bi sujjooti ci sujjoot yaa man yow ki nga xamante ne àqalaa xelu neen koo xamante dafa julli Eh, ñu di ko woo mu dégg ñuy woo ak turam mu daal di sàbbaal daal di wax subhanallah masalan daal di wax subhanallah ngir dictal ngir wax nit ki ne ko ah damay julli waaye dégg naa la moo tax mun ma laa wuyu nga xamante ni di ko wan na ko man daal damay julli nee na kon boobaa loolee mu def kon def na luñ sib maam boo dee julli rek ñu lay woo yow moom bu la ci nekk di sàbbaal te ngir wan ko damay julli yow konnee sa julli rek bu ñëwee dana xam da ngay julli waaye dégg ñu lay woo nga daal di sàbbaal ngir di ko won na ko man daal damay julli nee na kon boobaa def nga lu ñu sib waaye nag téegul julli ko moom baax na su jot tamit waru ca dara waru ca waaye téegul julli baax waaye li nga def nag mooy def ko lu ñu biir julli <clears throat> wa in waqafta ndem gag nga fil xiraati njàng ma walam njaftax te gàggantu la aleyka di la war yaa yi yi yow sama xarit arimul kenn nee na fàttaru kon bàyyil aayatan aaya minha googee waqafta goog gage nga isan boobee su maqra topp nga jàng ma baadaha la ca topp di sax ngir nga woy nee na su fekkoon ne daf nga doon julli bi ngay julli daal di gag di tari alxuraan daal di gag bi may bu ma waxee nag ngay julli tari mooy li ma jul mooy ngay tari aw saar waxuma ci faatee ja loolu dinaa ci ñëw ci kanam ngay julli di tari aw saar gat ca saar ba nga doon tari waaye nag amoo kenn koo xamante ni maanaam mën na laa gàgganti daal nga xam yow donc yaarum doon julli amoo kenn ku la gàgganti wala amaana sax yaa ngi julli waaye ki ngay ki yaa ngi jiite waaye ñi ngay jiite sax yaa nga xamante ni boo gagoon nii sax yow mënuñ laa gàgganti fi mu toll nii ndax maanaam xëy na amaana jaamuñ nee kon su boobaa aaye boobu nga gagee su fekkee ne mënoo jàll moom aaye boobu nga gagee danga koy tëb dem ci aaye bi ci kanam waxuma comme li nga xam la nit ñu bëri def nga xamante ni tey boo doon tari daal di gag daa ngay deltu ginnaaw eh, ngir maanaam mën a konne déedéet matalan ngay tari daa di wax xul huwallahu ahad allahu samad léegi nag xamatoo li ci topp muy lam yël mu julaat nga xam moo ci topp yow xamatoo ko nee na bul nekk dellu ginnaaw ci naan xul huwallahu ahad allahu samad ngir maanaam mën a konne bi nga nee xul huwallahu ahad allahu samad léegi nga gàgg foofu xamoo amoo kenn kolo la gàgg ku la gàgganti bu baax lam jël wala mu julaat goom nga xam xamoo ko dam koy tëb waaw daal di dem ci euh, lam jël wala mu julaat wala mu yekkul foofu daal di dem wala mu yekkul lahu nga xam ci ne jublu ci nga deltuwaat ginnaaw ca xul huwa janaan xul wallahu ahad allahu bàyyi lam jël wala mu julaat gi rek tëb ko daal di wala mu yekkul lahu kufuwan di kii waaw daal di woy daal di daal di daal di ko yemale foofu bu fekk xam nga aay ji xam foofu la yem moo tax bu doon benn saar boo xam dafa guddi tamit noonu ba tey da ngay boobu noonu bi nga gàggee dem ci aaya ba ca kanam fa inta taazara nem gàntal na alayka ci yow farka an na nga rukkoo nag waaye nag laa tanzur bul xooli al mushafa ab kaami ab al mushafa ab kaamil xiina waqaa ca waxtoom xewee nee na su fekkee nag da jiima amancé ci kanam munoo konne ba tey munoo konne waa nga amaasé amaasé munoo konne nga demen isa jaa nasrullahi walfat wala ayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaja yow nga gag munoo konne nga nga daa di xoo maam daal nga nga nga kii kii daal nga xalaat xalaat li ci topp munoo fexe ba konne te it amoo kenn ko ko la gàggat nee daggal foofu noonu yemale ko foofu rek nga daal di ru ko waaw yemale ko foofu rek nga daal di rukkoo jëwruñ delluwaay ginnaaw di kii yaatu yooyu ndax mënoo koon ne te amoo kenn ku neen yemale ko foofu rek nga daal di maanaam rukkoo mhm. waaye na du jar nga naan naa dem xooli kaayal ba ngir ñëw maanaam mën a yegg yéer yemale ko foofu rek nga daal di rukkoo nee na laakin waaye nag bi la wal musa maha maam wala mus lakinna za tashiri waaye gile jàppandal wala musamahata ak gile labiré yakkuun dana nekk fi suurati ci ci saarwa xayr fatihati waaye nag waxuñu maana fatiha bi waaw nee na bu fekkoon ne tey da nga juum nee li mu wax nii ci ginnaaw nga xamante ni euh, dangaa juum ci saar wi bi nga juumee ci saar wi ñu ne la léegi tëbal bàyyil bu fekkee ne amoo ko la ko ci aaya bi ci kanam bu fekkee mën ci kanam boo mun dem na nga daal ko wax nee na loolu moom buñ ko waxee mooy liñ ci jublu mooy euh, mooy ci saar mooy ci saar wa lañ ci jublu mais loolu moom ci saaro lañ bu dee ci saaru lañ jublu waaye tey bu fekkoon ca faatee jëla nag la xam kon léegi julli gi dana am faate waaye nag bu fekkoon tey ca faate nga gage ci nag loolu ci lay ñëw moo tax may yakkuun daa nekk fi suurati ci saaru xayrul faate nag waxuñu faate ji waaw bokkut bu fekkoon tey danga gag bu fekkoon faate ji ki nga nag léegi lan mooy àtteem lakinnaha waaye ikmaaluha ak mataram yoraa def na ko gis xatma muy lu muy lu war bi mushafin donte sax dangay ngay xooli ab kaamil aw xayrihi wala du moom bi lamtiraa in ci lu ak werante nee na bu fekkoon ne ca faat xeja ci nga gagee te amoo kenn ku gàgganti ngir nga mën a konne nee su boobaa bu fekkee ne am na kaayaan boo xam nekk na ci sa kanam te nga mën a séq ay jéego euh, dem ci kanam ngir xool ko ci nee na kon su boobaa noonu da ngay jéex da jéego dem ci kaayaan bi nga xam moo ne sa kanam man ko caa xool comme amoo kenn ku la gàggante sa ginnaaw moom euh, su boobaa kon euh, da ngay bu fekkee am na kaayaan bu fa nekk nga mën a séq sa jé séq ay jéego noonu ndox dem ci kanam ngir mën ko caa xool da ngay daal di def noonu ngir mën ko caa xool ndax faatiha ji moom faaw dafa war a mat léegi kon sa xel dana wax ne waa léegi su fekkoon ne tey ab kaamil nekku fa nag te man donc julli te wala kenn awma ko ma gàggante nga xam man donc julli wala doon sax amaana am nañu may jiit te sax ñoom mën nañu maa gàggante ca vaate ja nag léegi te kenn benn kaamil nekk ma mën a xooli léegi nu may def mu ne wa in tarakta nem bàyyi nga aayatan genn aaye min haa ca faate ja walam yumkin te jàppandiwul ah, tilaafin ak dabaatal fasjud na nga sujjul alxabli yi sujjudu xabla naam waaw nee na su fekkoon ne tey benn aaya képp nga ci bàyyi nga ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim nga daal gàkk foofu léegi maliki yow mi diini yi moom nga xam léegi loolu benn aaya la su fekkoon ne benn aaya boobu képp la mën nga kaa tëb daal dem ti iyaaka naabudu wa iyaaka nastain daal di konne boo demee ba nga xamante ni dem nga ba ca taaya mujj ba nga taaya pare nga sujjootal ko xabla salaam ndax ci faatiha ji la moo tax faatiha ji la ndax faatiha dafa war a mat rek loolu mooy fekkee benn aaya képp nga ci bàyyi. waaye na tey ci bu fekkoon nañ maam li nga ci bàyyi ëpp na benn aaya nag léegi nooy def moo tax mu ne wa in tarakta boo bàyyi woon maa loo xam yëpp kun dana nekk ak sar di ëpp benn aaya min haay ci faatiha ja kon nag fa butlaanu salaatika yàqu sa julli day yura def no gis neena su fekkon na tay li nga baye dafa upp ñaari dafa upp ben ay ci fatiha ji ben amo kenn amo kenn ko la gaganti amo kay bo xamanteni mu sa kanam bo xam nga mën a te say jéego mën nga mën a ay jéego man ko ja xol loolu amu ci ta léegi li nga baye ci fatiha ji lo xamanteni upp na ben ay so wa kon julli ko yaq so wa julli kon da yàqu waaw ah, ndax faati ja moom dafa war a mat ah, bu fekkee daal li ci bàyyi moom dafa ëpp benn aayam su boobaa kon julli dafay daal di yàqu